di nga am info yu leer ci people del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu Dakar yaa ngi Feeling Dakar di am info yu leer ci people les sport politique Feeling Dakar. waaw xam nga actualité moom buñ ci waxtaan ci Ousmane du jeex waaye li ëpp importance rek mooy yàlla dimbali na Sénégalais yi ba képp koo xam ne Ousmane julleewul këram mel na ni Ousmane sa biir xol la jullee te mu jullee sa biir xol dafa gën a yaatu mu jullee ci biir këram. Euh, beneen bi ci des mooy dañ ko doon pousser pour wan askan bi ne leen kii mooy nitu fitna lu tax loolu mooy lan. mooy bul fàtte ne ki def li waral lii di njiitu réew mi ak ñu mel ni moom ànd ak moom ci état dafa jékki-jékki daw dem Makka moom ak soxnaam aji ji mais pour man Cheikh Ablaye bala ngaa aji ji di baalu ji yàlla ak parce que aj pour sippi bàkkaar la rek yaa ngi teg benn jàmm boo xam ne mille depuis 2017 ba léegi yaa ngi ko teg fitna fii ci réew mi ba tegaale nit ñi ñi nga xam ne ni démb ñoo la faloon fii ci réew mi ba pare nag di def lu la neex ci réew mi ba pare daw ci yàlla ne danga nga koy jéggalu ci te yàlla sa digganteeg moom rek la la mën a jéggal waaye sa digganteeg jàmm bi yàlla mënula ko jéggal beneen bi ci des mooy biñ ko seetee foofu ba jàpp ko président Ousmane maanaam taxaw wàccewaat xolu Sénégalais yi indiwaat indiwaat dalug réew mi xamal askan bi yëpp ne leen man nitu jàmm la ñëy nitu fitna xam nañ leen ne ñëpp nañ dem tabaski ci jàmm ak salaam waxoon naa ko di ko waxaat tey parce que waxoon naa ko benn dof sax jógee fële ne ma bàyyil sëñ Cheikh Saloum mi ngay dugal ci politique ma ne ko ñaanuñ yàlla di jël suñuy kilifa di leen dugal ci politique parce que su ngeen bëggee fu ngeen parparloo da ngeen koy ut pour jaar ci sëñ Cheikh Saloum deful ngir politique mais dafa def ngir jaam benn jaam bu xeebu buñ jël teg ko fitna mu xam la ci diggante moom ak boromam mu jël ko def ko te yàlla tax def ko fi sabilillah ku mel ne sëñ Cheikh Saliou di doomu sëñ Saliou kenn mësu koo dégg ci détail kenn mësu koo dégg ci du ñàkk fayda kenn mësu koo dégg ci lu dul lañ déggoon way juróom wa yëkkati ñu dem ba teg loolu sénégalais bi mën a yëkkati xar joxe ko mën a yëkkati enveloppe teg ca kon kooku dëgg-dëgg maanaam sénégalais bi dañ koo ameel njukkal ngir ñaanal ko yàlla mu yàgg fi parce que loolu defalu ko sénégalais yi rek adduna bi yëpp la ko defal waaye ci kaw bi mu ko defalee àdduna bi yëpp nag sénégal ñoo war a ëlbatikuwaat ameel njukkal kilifa googu xamal ko ne ko li nga def nii même soo ko defaloon Macky Sall ñu koy teg fitna ji ñëpp ñoo la war a sant gërëm la ñaanal la yàlla mm-hmm. Assane Touma ba ñuy jël benn jàmm boo xam ne Ousmane la tudd sant Sonko di ko teg fitna ji ñëpp gis ko nag amul benn kilifa ku nekkul ci réew mi ku ko gisut mm-hmm. kon lii doy nañu sant parce que nag am na xam ne seen teraanga rek bu jugee ci yow ñëw ci yow rek loolu fanq lu bari parce que seen diggante seen borom dafa set wecc amul lenn lu ci lu ci jaar lu ci jaar kon lii mbégte la woon ak kontante waaye tabaski ren gi bokk na ci tabaski gu dàq ci suñ suñ tabaski ñun patriote uh-huh. parce que nag xar mi nga xam ne Ousmane Sonko moom la tabaskee uh-huh. xar moomu ñëpp xam nañu ci loxo walleehu la bàyyee ko ñëw ci moom te aussi tamit demul fenn taxaw di waxaal dañ ko jënd indi ko jox ko ko te yàlla tax kon loolu doy na sant yàlla doy na it ñu amaat ferte waaye nag bi luy passé nag am na lu Ousmane junj loo xam ne ni dama lay bàyyi nga indi ci laaj ñu tontu ci. est-ce que jàppaloo ne kii di la président Ousmane Sonko ni ñu ko jëlee tëj ko ci biir euh, këram euh, jàppaloo ne tey jii mën nañ ko jël noonu yóbboo ko euh, ci biir fi nga xam daanaka moo di kaso ba. waaw yow mi may laaj loolu sax Ablaye yaa gën a xam ni Ousmane dem nga ba Ziguinchor. Mhm. def reportage fu nekk yaa ngi koy dem ci mbedd yaa ngi toog ci grand place. Mhm. tey Ousmane moom jël ko tay tay tay mhm. fanaan ak moom ci këram moo gën a yomb jël ko tay tay tay fanaan ak moom ci kaso. ñoom ñoo la ko gën a xam parce que natt nañ ñaari. natt nañ jël ko fanaan ak moom kasa trois jours. réew mi yëpp may leen jàmm mu yëngatu man su may wax Sonko sax daanaka du ma du ma nekk kii. réew mi yëpp nekkuñ ci jàmm. ñu jël ko essayé dugal këram. une semaine réew mi nekk ci jàmm. ñu ne waa léegi kon luy pexe ñu ne kon nañ ko tëj biir cité kër góor gi moo ëpp jàmm ci jël ko dugal kaso ndax sénégalais yëpp mën nañoo mën nañoo àngu ne Ousmane mi ngi ci këram mi ngi lekk mi ngi naan mi ci jàmm ak waaye mënuñoo dégg ne Ousmane Sonko mi ngi kaso te Ousmane moom tamit moo la gën a bëgg actuellement ni ñu téye ko moom moo la ko gën a bëgg. parce que xam na ne maanaam ñu téye ko rek. mooy jeexal coow li. parce que mën na yëngatu tuuti ñaari fan ñett fan ñu téye kenn jël yóbbu théâtre keneen jël yóbbu téye Sonko dugal këram ñu ne ah comme Sonko comme proche bi nga këram ñu ci jàmm. mais le 25 bi demoon nañ pour dindi li nga xam ne moo di barricade yi mais mujjutoo am. du waa Pastef de du waa de. kon ñan la waa Pastef luñ luñ jug pour def ko def ñenn ñi nga xam ne la dañuy dindi dañu dañ maanaam dañuy dañuy nuróog dañuy xeexal Pastef wala dañuy xeexal Ousmane Sonko. Mhm. te xeexal luñ Pastef xeexal luñ Ousmane Sonko seen bopp la ñuy xeexal pour yàq. Mhm. combat bi nga xam ne Pastef mëne na ko. Mhm. F24 fan la juddoo ci lan la ay nit yoo xam ne daf lay leer na ñu ngi ci bokk ñoo xam ne nii maanaam bokk naa ak Ousmane Sonko biir F24 rek moo leen ca boole. waaye amuñ benn capacité pour bokk ci pour bokk ci dara mënuñoo yëkkati benn nit mënuñoo dajale benn mbooloo il faut dëgg ñu koy wax réalité mu jeex mënuñoo dajale benn mbooloo ñoon ñoo jug taxaw ne tey ñoom ñooy tax dem pour dindi bari yi kër Ousmane Sonko. li tax mu échec parce que ban mbooloo moo leen topp dégluwuñ leen Ousmane lañ ñuy déglu. xaaruñ leen Ousmane lañ ñuy xaar même ñu ootee bu ci làmmiñu Ousmane dugut du saf nit ñu duñ ñëw. te beneen bi mooy zëbi dañ ciy bokk waxoon naa ko dama koy waxaat. ñoom dañoo bokk ci zëbi. il faut patriote ñuy bàyyi xel di am di am ci gis nga maanaam euh, Abdoulaye. système bi dafa yaatu yaatu goo xam ne kenn ku ne ak róor ba nga koy defee mm-hmm. ñoom róor bi ñu koy defee xam nga mooy ban róor mm-hmm. mooy tey dindi stabilité réew mi pour lan bu réew mi bëggee tàkk ñu oole ne mi ngi bëgg a tàkk fii ak fii baaxut ñu taxaw créer manifestation ci diggante bi pour pour calmer ça bi mm-hmm. booy xool problème bu njëkk ba booy jógee di ko régler ñoom ci diggante bi lañ bu róor lu jàpp la diis pour lan pour bëgg booy yi wàññeeku wàll ci diggante nañ ne la diis te bu ñu leen wu ñemewuñ ko def sama dégg dañuy profité. dañuy profité pour maanaam pour pour pour pour yàq stabilité wu booy wala stabilité nit ñi donte naam yàq ak yu mel noonu ànduñ ci te bëgguñ ko parce que ay kilifa lañ rafetlu wuñ ko. Mhm. waaye nag dafa am loo xam ne yàlla daf koy misaal gis nga France gële. Mhm. gënuñ maanaam gënuñ ñu ci suñ bëgg-bëgg ak suñu gis-gis. Mhm. mais ñooñu ëpp démocrate foofu buñ demee ba ci rey benn booy. tiire ko bal. ñu retourné askan bi yëpp wàcc ki ci bokk ak ki ci bokkut wàcc mm-hmm. di ko naqarlu muy xeexu juróomi fan wala ñeent fan mm-hmm. ba état bi tourné retourné génne seen armée bi ñu am yëpp armée bi wàcc ci dëkk bi di saraxu mm-hmm. ñemee ko ñoo tiré benn bi kon loolu mooy démocratie waaye ngalam nga ci nga jël bal tiré kaw askan bi ngalam nga ci nga rey nit ngalam nga ci nangam dix-neuf personnes nga rey ko taxaw retourné waat am otage fitu jàkkaarloog nit ñi naan liñ fi jot a rey bëreegut warta tax ñuy dem GPI waaw kon kon ñun xanaa ay ganaar la ñu jàppe wala ay jën wala ay yabooy nañu respecté sénégalais yi nañu respecté sénégalais yi réew mii nit am fi jàmm. mooy ñu may Ousmane Sonko jàmm. képp ku bëgg am jàmm na nga may Sonko jàmm ku bëgg amul ku bëgg ku bëggul am jàmm nag xaw ma ci ko dara. el xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar